ci waawoon a woote kon nag wuy ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm ci waawoon a woote kon nag wuy ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen ñi nga xam yéenay seetaan asfiya yi ci àddina bi yëpp leeru Tiwaawan ziyaara dafa bokk ci oti yi tax nit ki di dugg àjjana ndax yonent bi dafa wax ni du ngeen dugg àjjana tànk bëggante wu leen te du ngeen bëggante tànk du ngeen di demalante ak dikkalante am na ci benn xadis boo xam yonent bi salaa sallam dafa wax ni xadisul qudsi la yàlla wax ko yonent bi yonent bi nettali ñu ko yonent bi nee na sama àjjana signal naa ko ñi nga xamante ni dañuy bëggante ndax man signal naa ko ñi nga xam dañuy toog grand place te man rek man yàlla maa tax waaye signal naa ko ñi nga xam dañuy ziyaara tente baatu ziyaara euh, am na beneen xaddis boo xamante ni Abu Hurayra moo ko solo yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nit jóg na dem di ziyaara ji mbokk julitam dëkk dëkk mu àgg ba ci dëkk bi di laajte mbokk mi tasante ak benn waay waa ji ne ko lu la fi indi mu ne ko damay ziyaare sama mbokk jullit te yàlla rekk tax mu ne ko man de malaayika laa yàlla mu wax ma ñëw jël jëmm wan la ne sa compte yiw remplir naa ko defe naa ko ak crédit ba mu fees dell ngir déplacé gi nga déplacé wu ziyaare ko sa mbokk jullit kon nga jóg di ziyaara sa mbokkum jullit boo xamante ni lislaam rek leen dajale yàlla rek leen dajale li si nekk ci ay yiw kenn xamul nu mu toll léegi nag ndegam loolu moo am yiw rawatina ngay dem di ziyaara ji koo xam ne boroom xam-xam la te ku ne xam na ziyaara boroom xam-xam li si yonent salaa salaam wax non seulement du boroom xam-xam rek teg si mais boroom xam-xam bu jëfe xam-xamam ñaar ñettel bet di borom xam-xam bo xamni jëfe na xam-xamam ba yàlla boole ko ci ñi nga xamanteni daf leen a boole ci ay awliyaam kon tey fi ne nii ziyaara bi ngay jóg di ziyaara li si laxasu ci ay yiw dafa bari bu doon nit ordinaire kese bu doon te da ngay dem Tivaouane pour ziyaara ji ngir Ousmane Ndiaye ordinaire kese gënu la ëpp la xam-xam raw la ëpp la ay jaamu yàlla man man na am sa yaa ko ëpp jaamu yàlla nga dem di ko ziyaare la yàlla warlool àjjana waxuma laa ngay dem ci koo xamante ni bu dee xam-xam moo la ko ëpp bu dee jikko ju rafet moo la ko ëpp bu dee li mu liggéeyal diine liggéeyaloo ko kon dafay gën a yokkati boo ñëwee ci alquran baatu ziyaara moo bi benn yoon rot ci alquran te benn yoon bi mu rote ci alquran fi'lu maadin la te li tax yàlla def ko ci ñu génn àdduna moo tax muy wax muy alhaakum takasur mais xatta zurtum almaqabira te yonent bi salaa salaam nee na dem leen di ziyaare ji xabru yi ndax ngeen mën a fàttaliku ne dee am na yombal xiyaam am na kon tey bu alquran ne bokk na ci liy defar nit mu dem ziyaare ji alxabru ak xabru jullit bu mën a doon kon nag bu dee xabru nitu yàlla ku yàlla nangul ku mel ne Seydi Hadji Malick ku mel ne ak njabootam dafay daal di gën a rëyati kon baatu ziyaara moom lu alquran nangu la lu xaddis nangu la lu logique doomu aadama it nangu la ndax nit ki lépp loo siq ak moom boo ñëwee ziyaara si ko rek cofeel judduwaat na xam nga euh, ziyaara ñaar la dafa am li ñuy wax ziyaara axawiya am li ñuy wax ziyaara istimdaadiya cest à nit ki ñaara ko composé l'esprit ak matière léegi Euh, ma jox la sax benn exemple tey bépp matière boo gis ci àdduna dafay soxla énergie matière boo gis ci àdduna day soxla énergie oto avion téléphone lépp day soxla énergie léegi nag bépp matière si àdduna énergie bu mu soxla matière doomu aadama moo ko ëpp moo ko ëpp doole énergie te doomu aadama énergie am ci doomu aadamaam la ko mën a jëlee maanaam énergie esprit esprit moo la ko mën jox moo tax bi yàlla di yónni yonent la yi mën a yónni mu nekk nit comme yow yéefari doon nañ demandé pour malaayika mais euh, doomu aadama énergie bi muy soxla pour charger ko mënu koo branché ci ci courant wu malaaka mënu koo branché ci courant wu jinne mais ci courant wu mboroomu nitam rek bu ko suur la koy branché kon tey bi bi nga xam dafa dem di ziyaare ji sëriñam kooku dafa am euh, matière portable la batterie wàcc léegi batterie bu wàccee day fay wala déglu bi du neex wala réseau bi baar yi wàcc léegi nag nga demaat ci sa sëriñ ci nitu yàlla euh, toog teewluwaat yàlla ci moom yaa ngi mel ni ki kuy solaat euh, énergie yaa ngi mel ni kuy wutaat crédit wala yaa ngi mel ni kuy wutaat réseau noonu lay mel parce que dafa am nit ni boo leen dee jego jege dañuy yokk sa réseau am nit ñoo xamante ni boo leen dee jege dañuy wàññi sa réseau mi ngi mel tey portable su doon sonné nga teg fi nga teg fi rajo bu affaire ñëw da ngay dégg muy xuni kon am na lu leen lié léegi nag kon tarixa Cheikh na nag tarixa la boo xamante ni day wut connexion diggante nit ki ak boroomam léegi diggante mu nit ki ak mu mën a am données yàlla mu connecté ci wifi léegi wifi yàlla nag pour nga mën mooy nit ki kon tey kii dem di ziyaare ji dafa mel ni ki moom dafa dem ci Seydi Seydi Abubakar wala dem ci ak njabootam pour mëna dugg ci wifi sëñ babakar, ci Seydi haji malik pour mëna recevoir données yalla yi nga xam mom la wat ci di ay lèr kon sëñ babakar sallallahu radiallahu taala anhu bu woté ziara pour ñëw mais pour lan la pour na ngeen ñëw ngeen charger wat seen batterie na ngeen ñëw ngeen seen esprit bu mat sëkk ba ngeen démé di ci connect ba deewen bu wat ngeen ñëwaat xam nga yalla subhanahu wa taala moy joxe mais gisagoo kenn kun la li ma yor yàlla ma ko jox directement foog mu am fu mu ko jaarale noonu intermédiaire amee suñu diggante noonu la amee suñu diggante ak sax gën a rawati kon tey boo jàkkaarloo ak xabru bi du xabru bi ngay ñaan mais yàlla ngay ñaan jël borom xabru bi def ko intermédiaire ci sa diggante ak sa borom ndax yonente salaa sallam moo ñu gën mais yonente bi ñaan na jël moroomu yonenteem yi def leen intermédiaire diggante ma boromam waaw kooku xaddis la ci ñi nga xamante ni duñ ay yonent de mais nit ñu baax lañ parce que bokk na si ñaanu yonent bi yonent na yàlla sa jaam yu sell ci sa jaam yu sell kon jël na ay jaam yu sell mom yonent bi daf ko intermédiaire digganteem ak boromam kon yow mi ñëw ci xabru bi da ngay ñaan yow yalla ci barke sidi abubakar radiallahu taala an barke seydi haji malik barke alhaji mansour barke cheikh alhaji dabakh barke njabootam gi nga ñaan ci yàlla nga sellal sa yéene bi desit nga ñëw ñaanal ki nga fa fekk ñaan yàlla ci barke ki nga fa fekk waaye itamit taataan loo xamante ni dina la jëmale sa kanam ci sa wàllu yàlla wala sa wàllu àdduna parce que si Abubakar radiyallahu taala anhu bi muy keree ziar bi juste loolu la woon mooy nit ñi bu ñu ñëwee yeesalaat seen cofeel ci Seydi Hadji Malick ñaanaat yàlla ci barkeem ñaanal ko ba noppi toog déglu ko mu jox leen ay orientation yoo xamante ne ci la ñuy ba déwén ndax l'islam noonu lay doxee l'islam fu nit daje rek orientation dafa war a jóg moo waral xutba boo dégg ay xutba sëy xutba euh, euh, julli julli it xutba bu weer wi bu buñ jàppee weer wi wala xutba buñ jàppee jant bi c'est-à-dire xutba yooyu mooy genre orientation parce que mbooloo ay nit fu ñu xas ba daje rek dañuy soxla message boo xam dañ koy mën a jël pour jëriñoo ko comme ni ñuy soxlaa lekk di ko soxlaa naan kon yow miy ñëw di ziar si tamit nga bàyyi xel ka ni dafa am benn message bu ñuy joxe ko boo demee góorgóorlu si loo si man nga def ko te saasam dafa waxe ci benn xadis nee na dee leen joxante ay addiya dee leen ouvrirante ay kado ngeen ngeen mën a bëggante loolu dafa am solo bi si des it euh, mooy euh, nit ki nga xam da koy yaakaar ci sa wàllu yàlla yaakaar ko ci sa wàllu doxalin te it lépp loo xew la mu dagg léppam ñëw te yow doo doo dagg daraam ngir moom kooku li la yàlla di wërsëgal mën nga see yëkkati jaayante ak sa borom te yàlla rek tax parce que dërëm bi nga jox ab jaamu yàlla wala dërëm bi nga dox borom xam-xam wala dërëm bi nga jox kilifa goo xamante ni amal na njëriñ pénc bokk la dërëm bi nga jox Ousmane Ndiaye mi taxawaalu si mbedd mi. xam nga ñun nag boo xoolee dañu xaw a am point boo xam dañ koy xaw a négliger tuuti di wàllu joxe addiya lu lu ama am solo la ci diggante taalibi ak sëriñ ñun nag boo xoolee benn baat boo xam ni en fait man jàppewuma ko tiitar. ñun suñu sëriñ du sama sëriñ du ma ko jox addiya bu toogee ci kaw damay toog ci kaw loolu du titre déedéet loolu loolu loolu loolu gàcce la sax kon kay kon kay joxal sa bopp werd bu ziar jotee toogal nga ziar sa bopp léegi nan la nan nga mën a jëlee werd ñëw tàllal ko mu jox la werd bu ziar jotee nga ñëw bu gàmm jotee nga ñëw boo def nga ne du ma ko jox dara bu toogee ci kaw ma toog ci ma toog ci kaw euh, wax dëgg fi yàlla benn risque la boo xam ne bi mu ñu duggee man damaa xamul kañ la parce que boo demee ci Seydi Hajji Malick téere bi mu jàngale ci ci Kifaayatur Raaxibiin Ah, ah, faakasa tulaab saxula faakasa tulaab bunt ba muy wax tegginu taalibe ci ci ci ci ci sëriñam boo liiroon bunt bi mais danga naan ñun ñun ñun lii ñuy dunde ni fan lañ ko jëlee maanaam ñun ni ñuy dundee ak suñu mu toog nga toog ci kaw bañ koo jox dara bu waxee nga teg ci baat loolu da naan ñun loolu fan lañ ko jëlee te te tasawuf dafa nekk lu xaw a lu xaw a dafa am benn xorma bu muy laaj pour nga mën see jëriñu tasawuf tasawuf fiyanke rek mooy mooy mooy matière boo xam ni mënoo see jëriñu tànk nëbboo sa bopp ci kanam ki nga yaakaar mais fii yaa ngi si sa bopp ci kanam ki nga yaakaar rek doo jariñu Seydi Hadji Malick dafa wax ni sa sëriñ waxee dara yoo xam ne déggoo ko commentaire ko ci sens bu baax soo ko mënul nga daal si maandu xam nga sànq maa ngi lay wax nee naa la man masala yëpp laa ñime abordé man masala nu mu toll ñime naa ko ba mu des masala tasawuf maanaam masala sa sëriñ sa waxu sëriñ da nga koy gëm rek téye ko la sa des nga daan di bàyyi noonu daal siy maandu. Euh, nitu yàlla waxam dana nekk wax boo xamante ni fa muy ci waxin ak déggin yow doo ko man moo tax côté côté taalibe ak sëriñ lu complexe la euh, yàqoo si mën na mën na gaaw lool tey nit du yàqoo ci bàkkaar nit mi ngi yàqoo ci xormaal bu xotti xormaay nitu yàlla euh, iblis iblis yàqowul ci bàkkaar de dafa yàqoo ci manqué xorma nitu yàlla muy aadama mi yàlla defal mu manqué ko xorma ci la yàqoo pourtant iblis dafa def bàkkaar mais aadama dafa def bàkkaar asa aadamu rabbahu aadama dafa def bàkkaar iblis def bàkkaar aadama dafa tooñ yàlla reconnaître na tooñ na mais manqué wul teggin yàlla manqué lu ko xorma daraam mais iblis lu yàlla defar léegi nag kon nit ki di di def bàkkaar diggante ma boromam moo gën a sedd donte bëgguñu ko ci mu manqué xormatu yàlla waaw moo tax nitu yàlla loo mën ci xormaal ko rek def ko te xaddis bi ma la wax sànq bi Abu Hurayra solo ko te muslim wax ko ci ki jog di ziyaara ji mbokkam yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana dem di ziyaara ji masjidu Quba sahaaba yi daana dem di ziyaarante ji di di ouvrirante ay kado kon digg ay julli ñuy ziyaarante moom ko kenn dañ ko war a encouragé sax mais rawatina nag nit ku baax kooku moom rotna ci sunna l'islam nanguna ko sharia nanguna ko c'est que nag dafa am ño xamanteni xeyna euh, dafa am lu len di lu len di metti wala luñu gëmul même boko ko gëmul it nga mandu ci rek même ni nga xam dañu def ziara bi daa ñoom dañuy ziarante ji waaw dañuy ziarante ji bu baaxa baax ta kañu ziare sax mën naam ñom ño yam ño yam ño yam ci diine ji boo xanaa di ñaan yalla rek yalla ñu yalla dugal ci ziar bi ak jamm génn ñu ci ak jamm lepp lu sey ay leer ak i njëriñ yàlla bu ñu ump yalla defara suñu pass pass defara suñu talibé defaraat suñu relation suñu diggante suñu kilifa mu rattax lool yëpp rawatina alxalifa woote kon nag wuy ji leen ku jóg aas am say ngërëm ci waawoon woote kon nag wuy ji ku jóg wuy ji mam aas am say ngërëm. di waawoo la woote kon nag